macha allah. a añu neex na magal gi neex na njaaram neex na yéen fan ngeen bàyyi ko ñun ñu ngi bàyyi ko Ndakaaru Njaay Ndakaaru Njaay ngeen bàyyi ko est-ce que c'est la première fois ngeen jaar njaareem wala yàgg ngeen fiy jaar waaw yàgg ngeen fii jaar na aha bi ngeen ñëwee lan ngeen gën a seetlu ci dëkk bi lu koy ràññeel léegi yeneen dëkk yi daal wuute gi lu koy rëñ maanaam maanaam waa waa ñoom ku leen ku leen ku xam ne ñoom waaw ñoom ñu ngi magal nekk ñu sabar kase 17 la. waaw 18 ba 19 jàll lan ngeen di dénk ñi nga xam ne fa yéene nañoo dem ca dëkk bu sell ba ngir ñu mën a jariñu ci bis bu màgg bi. waaw ñu xam ñu xam liy màggal rek. waaw na xam ni. gi su ci xam ne mosul moo am lu kenn amul. waaw ba yàlla defal ko lu kenn lu mu defalul kenn. waaw di di dégg suñu mbokku murid yi mbokku taalib yëpp. Mhm. ku dem Touba. Mhm. na fexe ba li nga xamante ne moom sariya ci ay worma. Mhm. na sàmm euh, lu ngeen di wax ci moom. mu yàgg fi te wér. wax dëgg yàlla yéen ngi àndoon seen YouTube bi nga xam ne mooy yaatal xeltu yin. xeltu yin. waaw waaye benn seen YouTube la boo xam ne ñoo ñëwoon rek pour jàpp ci liggéey bi. jërëjëf waaw jërëjëf. ay waaw lépp ci liggéeyu sëñ la rek amin amin amin amin barke sëñ fay yoon bi aha yow waa njaareem nga wala foo ko voilà mais sama oto nga ne dama dëgg la nan nga gis taxawaayu waa Njaareem ci 18 safar bi. waa Njaareem kay moom ci kaw ci kanam rek. ci kaw ci kanam. waaw Cheikh Mouhamadul Mountakha nag. ah yal na fi yàgg lool ci kanam. amiin amiin amiin jërëjëf. baax a baax. baarakallah ndeysaan rafet na rafet na macha allah ah ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. yeneen nekkoon ci liggéey beeg waañ bi waaw ah euh, nan ngeen gisee nag euh, mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi ko ci yeneen dëkk yi di jaar njaareem ngeen leen di teral liggéey boobu nu ngeen ko gisee. waaw waaw waaw. Mhm. est